barke sëñ Babacar Si attention bay kon xoolal Sakare Ablaye Dide ah xaw ma foofu fee dama ñëw gars yi Ablaye Dide yow barke Seydina Mohamed yow xaw ma foo nekk ah mais amuñu sa fay loolu dëgg la Ablaye Dide daa xam ak géwél ma ñëw gars yi barke yonent bi te si gën a doy waar mooy jamono ji daa tere bi dëgg la barke Seyra Fall mais Ablaye Dide yow da ngaa foog dëkk Samari xaw ma foo dëgg la yow ñaar moo fi nekk bu neex chaque jour da ngay jàpp ne maanaam du mës a naqari voilà buy naqari chaque jour tamit baaxul moo tax des fois rek koy varier maanaam euh, buy neex des bu naqari après da ngay defaraat sa toogaay xam fi ngay jaar moo loolu la doxal. que depuis loolu ñu waaw chaque jour chaque jour Makan ak may woo Baye Ndiaye may woo waa waa jàmbaar ak may woo ñu may woo bu baax nag. ngay posé adversaire yi kon. ñu ngi mooy faral di ñëw. rek instant bi ñu ngi may ñu yu bari yu bari bari sax xam nga rek mënu ma ñu cité kenn te taxawagul mais ci ñoom lay desee mais man moom je suis paré pour tout. saa bokkal ba ma seen moom dégg naa yóbbanteem ci yow. saa bokkal. moom daa jàpp na nga ragal. non kooku man kooku ko moo tax barki alxuraan. saa bokkal. barki Seydina Mohamed naan ma ko. saa bokkal bi ànd ak ma seen. waaw kuy bokkal man waaye man damaa nekk ci ay bokk ak yooyu man new ma foofu. na ma gars yi jox ci catégorie yu mag yi ma bëre voilà. saa bokkal du sa adversaire. a ah? saa bokkal du sa adversaire. dama ko sibul rek billahi man bañu ma bëre kenn képp ku ma làmb booleel ma bëre ak yow man aw ma problème yooyu man entraînement rek raxas dee ci ci ma ne woon ba léegi de barki sëñ Ba ma ne bu ma kenn yab waaw man góor du ma man nee naa la suqu suqu dulu laa suukar du bàyyi neex nee naa la du ma bëre suqu gànga ndax géew bi daa yaa ah fasu naaru góor du ma du ma dawandoog ma yaar voilà damay jàgg di joggi ba mel ni kuy buur damay jàgg di joggi ba mel ni kuy buur barki Seydina Mouhamed nee naa la euh, maanaam gis ma nii ma kiliñ nii defet bi di ma defet ni nga yaakaar ne ku ma ci yab su mala la jàppee su ma la ñuus dama lay ñuus maa ngi fa ma newoon ba tey voilà dama lay ñuus amul amul xalaat ñibbi noos ci loolu laa ne de voilà sa ko de yee na la non non maanaam euh, euh, du question sax mais c'est que àdduna boo ci nekkee xama rek des fois foog ngay xam sa bopp man dama jàppoon ne sax maanaam euh, man euh, bu ma demee maay daan dama dama demoon ba jàpp loolu mais def xam ak ak situation yi ma ñàkkee damay xam ne maanaam lii yàlla moo ñëw ak mbiram voilà. mais a jekkoon nga a ah? jekkoon nga ne daa mel. non dama pare fépp mais yàlla baax na daal yàlla ñu yàlla defal jàmm mayaat ñu beneen combat ñu ñëw wanewaat suñu bopp jaajëf.